maye deret di sauver ay bakkan doon lu am solo ci biir dundu doomu aadama waral association des médecins di Sénégal daje ci l'hôpital Dalal Jàmm ngir joxe seeni deret ba noppi tamit di sensibiliser askan bi ñu daal ci gën a dugal seeni loxo. donc li ñu li ñu dajale tey mooy association des femmes médecins benn kuréel la goo xam ne day dajale euh, euh, jigéen jigéen yu def médecine ci dëkk bi yëpp dañu dañu euh, bëggoon jàppale centre national de transfusion sanguine ndax gis nañ ne Covid bi dafa ñëw gën a yokk problème mu euh, disponibilité deret bi donc ñëwoon fii Guédiawaay ak équipe bu euh, centre de transfusion ak suñu partenaire euh, l' association des donneurs de sang ak ak équipe hôpital bi ñu organiser benn journée don don de sang ak mobiliser tamit tout ce qui association locale association yu bare jàppale ñu parce que xam nga ni Guédiawaay moom association yu bare na et dynamique nañu ñoo ñu jàppale pour ñu mobiliser population bi mais nag suñu thème ren moo doon jigéen ñi dañu bëggoon waxtaan ak askan bi ne waxtaan surtout ak jigéen ñi ñu xam ne ñoom dañuy wax di may di gën di may di deret deret ndax ñoo ko gën a soxla ndax boo jëlee juróomi nit ñoo xam ne jox nañ leen deret ñeenti yëpp jigéen lañu mais bu ñu xoolee ñeenti nit ñu joxe deret benn rek moo ci jigéen donc moo tax ñu ne woon dañuy waxtaan ak askan wi ñu ñaax leen pour jigéen ñi mën a góorgóorlu mën a gën a impliqué ci don de santé ñoo gën soxla solo gi mu am solo ba tax na acteurs yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci mbir mile rawatina médecin yi di jàpp ne lii ab jaamu yàlla benn benn nit bu may deret mën na ci sauver ñetti nit dañu ne une vie sauvée waaye benn poche si deret mën na sauver ñetti nit ndax deret bu ñëwee dañ koy xaaj liñ ciy xaaj boo ko boo ko seetloo dina mën a dimbali ñetti nit donc may deret ci jaamu yàlla bokk mën naa wax loolu day day jàppale sa askan loolu parce que deret kenn du ko kenn ko defar nit rek moo mën a may nit donc ko soxloo bu musiba moo moo mooy moo mooy ñëw foofu. ngir dajale askan wi ñu daal di maye deret mu doon lu jafe ñu jàpp nag communication bi moo jàllut dëgg-dëgg ni mu war a jàllee. mooy suñuy soxna bu ñuy mucc dañ koy soxla lool ñiy accidenté yéen a ngi dégg accidenté circulation yi ñoom it dañuy soxla deret bu fekkee ne nag loolu dañ koy soxla te amul usine bu koy defar xamuñu fu ñu koy jëndee donc dafay daal di métti bu doon lu ñuy jënd la wala lu ñuy defar la ñu mën a wax. mais tey jii nii loolu kenn jënd ko loolu kenn defaru ko nit rek moo ko mën a may moromam donc il faut ñu wax nit ñi pour ñu xam solo si xam ne amul benn danger amul benn risque au contraire day da leen di dimbali ñu xam seen statut sérologique au contraire da leen di dimbali ñu xam ndax feebar am na seen yaram teel koo xam pour ñu ñoom it ñu mën leen jàppale. ñoom ñi bokk ci association des médecins du Sénégal. ñu ngi dellu si waat ci xayma bi nga xam ne dañ koy am. ñetti téeméeru ni tey ci bésu tey bi. nañu espérer nag bu ñëpp mobilisation bi ñu gis ci association yaakaar nañ loolu danañ ko mën a am. ba noppi mu doon loo xam ne dafay yaxanal poosu doomu aadama rawatina ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir këru docteur yi li euh, may deret bi day tax day tax ñu defal ay bilan saa yow mayee dañ am am nga bilan boo xam ne boo ko xayma mot na ëpp na cinquante mille francs boo ko naan fay. donc bilan boo xam ne c'est gratuit ça te permet nga xam sa santé fu mu toll donc nooy gën di def bi def may deret ngay gën di xam sa ngay suivre sa santé bu baax donc may deret daal maanaam ay bénéfice rek moo ci nekk may deret ci mim réew di Sénégal nekk loo xam ne ñu bëri ci askan wi dañ koy umpale ba tax na bu ñu saxoo ci ñoom ñu daal di maye deret dañuy lànk association des médecins di Sénégal ñuy xamle ne maye deret lu jaadu la te ba noppi itam ña ko soxla kenn du leen jaay ndax li ni mel dañ koo tere ca jamonoy Ablaye Wade ba léegi. Et moi, en tout cas, depuis que je suis là, j'attends qu'on m'amène quelqu'un qui puisse me dire que j'ai acheté du sang. Il y a des techniques, et il explication à vous donner. C'est depuis l'arrivée de Maître Ablaïwat que ce qu'on faisait, à savoir demander une petite participation du malade d'un montant de 7500 sur le prix du poche, on ne parle pas du sang, il y a le contenant et le contenu. Donc sur le prix du contenant qui est la poche, qui n'est pas fabriqué n'importe comment, qui n'est pas fabriqué, qui n'est pas vendu, si ce n'est pas dans une structure hospitalière. Donc, quand le président Ablaïwan est venu, il a fait comprendre que ce n'est pas normal au niveau des hôpitaux publics qu'on demande une contribution du patient par rapport à une poche de sang. kuréel gi ëmb fajkat yi nekkee ci biir réew mu Sénégal ñoo doon amal bëccëg maye deret fii ci hôpital bu dalal jàmm e ñu ngi xamle ni dinañ ko amal fépp ci biir réew mi